Mayakor euh, Diouf maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Ndeye Comba Moreau Mahécor Diouf nga nekk coordinateur bu jeunesse consciente de Toubacouta président commission jeunesse et sport et loisirs du conseil départemental de Foundiougne chef du personnel du centre de santé de Dakar Plateau euh, déjà Mahécor ma lay laaj en tant que jeune naka nga gisee euh, phénomène émigration irrégulière bi nga xam ne fi ñu toll nii moo nekk au cœur de l'actualité euh, sénégalais yu bëree bëri di si Euh, di nuyu sénégalais yi nga xam ne ñu ngi ñuy déglu ci réew mi FM euh, di jaalee njaboot yi nga xam ne seen i doom euh, wàññeeku nañ ci géej gi mu nekk lu métti ñun semaine passée am nañ ci ay xale ay jeunes yu bari yu des ci géej gi muy fukki jën ak ñeent yu de yu dekk commune bu Bassoul juróom yu dekk commune bu Toubacouta ak ñett yu dekk ci commune bu Karang donc loolu aussi c'est important pour ñu rappeler ko Euh, ndeykumba situation bi ñuy dund instant bi métti na trop euh, ci famille yi métti na ci Sénégal euh, wax dëgg yàlla situation bi képp ku wax ne méttiwul je crois que daa dalul sa mbokk. Mm-hmm. mais li ñu mën a wax mooy émigration clandestine situation bi bi ko waral mooy xale yi dañoo amatul espoir des ci dëkk bi xale yi dañoo amul liggéey ci dëkk bi. donc euh, ki nga xam ne wax dëgg yàlla juddu na màgg ci dëkk bi ba toll fu mu toll ñi am seen i seen i ñi amuñu seen i lijaasa waaye toll ci wax dëgg yàlla liggéey te amuñu ko loolu métti na waaye nag c'est important ñu rappeler ne euh, pour nga am visa dafa dafa dafa métti ci Sénégal pour nga am visa pour dem Europe wala nga dem Amérique loolu war nañ ci war nañ ci wax war nañ wax également ci euh, jàppale bi ñu war a jàppale ndaw ñi pour ñu am liggéey mooy ci ci secteur yi nga xam ne ci loolu la ñuy liggéey ñu fekk leen ca jàppale leen ca loolu def na war nañ mën a xool également investissement yi nga xam ne ñu ko war a jox ndaw ñi ñu jox ñu koy jox ñeneen ñoo xam ne mérité wuñu ko loolu war nañ ci wax donc loolu aussi bokk na ci li nga euh, na nañu wax ak ñoom ñi nga xam ne seen parents yi dañ leen di dañ leen di comparer ak ñeneen ñi nga xam ne tekki nañu te xam nga tekki ci loxo yàlla la nekk waaye nag war nañ ci wax dëgg yàlla xoolaat euh, ni ñu ci waxee ak xale yi ba mën leen téye ci dëkk waaw léegi dafa mel ni daal bu ñu la dafa euh, apprécier woo trop euh, liggéeyu ministre euh, de la jeunesse di Pape Malick Ndour. déedéet ministre de la jeunesse boobu man dama jàpp ne ministre de la jeunesse ñun amuñu ko. man en tant que président commission jeunesse sport et loisir bu conseil départemental conseil départemental fële ca Foundiougne. Mhm. ñun naa wax ne ministre bi gisuñu ko fenn yëgu yëguñu ko fenn dégguñu ko fenn. kon tey situation bi xale yi di dund mun naa wax ne ministre de la jeunesse bu incompétent moo ko waral ministre de la jeunesse boo xam ne euh, yoonam nekkul ci ndaw ñi moo ko waral kon kooku war nañ mun a xool euh, lan mooy njëriñam ci euh, bopp ministère la jeunesse bi nga xam ne jeunesse baa ngi daw dëkk bi di dee ci géej gi loolu moom xam naa ne xëy na président wax na ci ak moom waaye moom ci boppam war nañu indi explication ci jeunesse bi ba xam lan la la lan taxawaay la ci mën politique bi nga xam ne njiitu réew mi moo ko dégagé par rapport euh, aux jeunes est-ce que du njiitu réew mi euh, échoué oui waaw waaw mën nañ ci mën nañ ci ay leeral parce que soo xoolee président de la république bi mu ñëwee dafa indi ay ay politique muy politique de jeunesse muy ANPEJ fii muy DER fii muy FONGIP fii euh, ak yeneen structure yoo xam ne dañuy financer ndaw ñi waaye euh, je crois que yooyu yëpp yi ci gën a bëri ci tutelle ministre de la jeunesse la nekk kon ministre de la jeunesse tey ñooñu lépp lu ñuy def dañ ci war a dañ ciy déggu ak moom kon moom si boppam war na mën a xool tey su ma jëlee exemple département Foundiougne euh, coordonnateur euh, Prodac ñu amoon date boo xam ne président moo ñu ko diggoon boobu ba léegi ministre de la jeunesse bu mu fi nekkee waxtaan waxtaan ci ak moom ba tey mu nekk bu mu nekkee coordonnateur euh, Prodac waxtaan ci ak moom ba tey mu nekk ministre la jeunesse mun naa loolu ba léegi taxawul te xale yi di daw di daw di dem di dee ci géej gi kon ministre de la jeunesse boobu am na lu bëri loo xam ne mun nañu wax ci responsabilité am la nekk. kon kooku war nañ war na mën a taxaw expliquer nit ñi wax ak nit ñi ñu xam lan la quel est problème. naka nga gisee offensive bi nga xam ni état bi moom la lancé pour euh, jàmmaarloo ak immigration irrégulière bi est-ce que plan boobu naka nga ko gisee plan de lutte bi. waaw waaw plan de lutte boobu wax mooy lu ma wax sànq rek su nekkee ne plan de lutte boobu ministre de la jeunesse moo ko war a jiitee muy Pape Malick je crois que plan de lutte boobu mun na mun mun na mun na naaxsaay mun na ñàkk am ay ay gain je crois que nga nekk Dakar nekk say climatisé di jël ay ay ay mu ngi war a daanu ci ay jeunes yu nekk Bettenty war a daanu ci ay jeunes yu nekk Pakala war a daanu ci ay jeunes yu nekk Saloum Diané war a daanu ci ay jeunes yu nekk Sadio Ga John Waar je crois que yaa ngi juum pour nga mën a régler problème problème jeunes yooyu yow yaa war a déplacé wu dem fekk jeunes yooyu woo leen toog waxtaan ak ñoom ñu wax la naka la ñu buggee nga xool li ñu la jox ak ñoom lu ñu bëgg yan solution nga ci mën a def ngeen waxtaan ak ñoom ba juboo yëpp waaw loolu su amee solution bu gaaw dina am ba xale yi mën a toog am espoir def seen réew mais su fekkee ne da nga war a da toog fii ci Ndakaaru euh, di xool solu di xool ndawu Ndakaaru yi nga ngay ut solution boo xam ne da nga koy adapté ndaw ndawu Ndakaaru bu ko jël yóbbu ko fongole mi je crois que di nga daan sa politique loolu nag wax ñu ngi ciy attirer attention njiitu réew mi pour que mu jox euh, euh, grand chance boobu mu jox ay nit yoo xam ne dinañ mën a déplacé wu fekk ndaw ñi fu ñu nekk waxtaan ak ñoom trouver ay solution sur le terrain. Mhm. Euh, fi ñu toll nii ñuy màggal bés bu ñu jagleel wàllum entrepreneuriat semaine bi sax la euh, semaine bi yëpp tey ji yow Mayekor Diouf euh, naka la ñu mën a suqale entrepreneuriat fii ci senegal rawatina ndaw yi ak entrepreneuriat. waaw mooy mooy mooy mooy mooy ci point bu ñu jógee entrepreneuriat mooy xale yi mën a liggéeyal seen bopp liggéeyal seen bopp tey soo xoolee am na étudiants yoo xam ne tey suñu ko seen seen rappel bourse dañ ciy jënd ay béy ñi jënd ci ay xar ñi jënd ci ay ginaar je crois que ñooñu wute na également ak ñi nga xam ne buñ juddoo ba léegi ci mbéy lañu nekk ñi nekk ci jardinage kon ñooñu da leen di fekk ci ñoom ci ci secteur d' activité bu ñu nekk nga jàppale leen ci loolu su ko defee mu gën a yaatu ñu mën a recruter ay nit ñu ci liggéey nga xool ñi nga xam ne ñu ngi ci ci ci ci géej gi pêche lañ ci pêche la ñuy dund nga dem fekk leen ci pêche bu ñu nekk euh, jàppale ñu ma ñu am moteur hors bord je sais que le président président am na lu bëri lu ñu ci def mais nga jàppale leen ci loolu xool euh, pirogue yi ñu ñuy demee géej ndax pirogue yi adapté na wala nga jàppale leen ñu am ay pirogue yu baax su ko defee ñu mën a jàppale ay yeneen ay yeneen jeunes ñu mën a liggéey nga xool ñi nga xam ne ci secteur euh, yeneen secteur lañu nekk nga jàppale leen ci secteur bu ñu nekk jàppale leen ci yokkal leen su ko defee ñoom dimbali ay nit waaye su fekkee yow fi nga nekk bugg a bugg a bugg a wala jàppale ay nit yoo xam ne xamoo leen je crois di nga di nga di nga jox ñoo xam ne ay financement lañ te ñooñ mérité wuñu ko loolu nag je crois que président war ci bàyyi xel bu baax parce que financement yi muy joxe ñu ci gën a bëri dañ koy jox ñoo xam ne je crois que liggéey buñ ci war a def duñ ko ci def il faut aller vers les jeunes sur place waxtaan ak ñoom sur place trouver des solutions sur place. Euh, beneen ponk aussi bu am solo naka nga gise affaire Ousmane Sonko et ses fiches de de parrainage en tant que politique naka nga gisee question boobu. waaw question boobu moom euh, question réponse bu simple rek moo que gis nañ ne question boobu dem na ci ci fu benn. Euh, kon ñun en tant que sénégalais euh, respecté suñu justice am confiance suñu justice dañuy bàyyi suñu justice joxe décision décision bu mu joxe ñun dañ ci ànd à cent pour euh, jàppale leen ci loolu ba Sénégal am jàmm. Mhm. kon yow da nga d'accord si ñi nga xamante ne dañuy wax ne Ousmane sonk war nañ ko mën a bàyyi mu bokk si élection yi wala. non élection yi euh, ki kii bokk ak ki ñàkk ki ki ki dul bokk loolu je crois que yoon moo koy wax yoon ku mu ne dina bokk ñun dañoo war a ànd ak moom kooku bokk yoon ku mu ne du bokk dañoo a ànd mu bañ a bokk je crois que ñun position boobu lañ euh, wa du ñu wax ne Ousmane dafay bokk wala du bokk mais yoon su waxee Ousmane dafa war a bokk ñëpp lañ ko war a bàyyi mu bokk euh, yoon su ne du bokk nag ñu xam ne yoon moo ko tere. Mm-hmm. dernière question aussi pour yow lan lañ war a teg exactement pour élection présidentielle bu 2024 nekk élection présidentielle bu ñuy amal si jàmm ak salaam du am benn fitna mais aussi leer nañ ba buñ ne euh, diw moo gañe kenn du werante daal. waaw mu am ay eh, mu nekk élection inclusive boo xam ne képp koo xam ne yoon may na la nga bokk képp koo xam ne yoon setal na la nga bokk ci élection yi. nañu la bàyyi nga bokk ci élection képp koo xam ne aussi yoon moo ne yow mënoo bokk parce que lii ak lii ak lii moo tax mënoo bokk kooku dem toog xaar ba bés bu nga xam ne war na mën a bokk mu bokk je crois que loolu daal su amee euh, nañ dem ci élection ci jàmm Euh, voté ci jàmm jeexal ci jàmm président buy gën a ñëw def prêter serment ci jàmm Sénégal lekk ci jàmm. maanaam daal ñu respecter les décisions de justice loolu nga bëgg a wax. waaw loolu daal man foofu laa foofu laay argumenté sama position. Mhm. ñu respecter les décisions de justice su ko defee wax dëgg yàlla euh, jàmm na ñooy. kon euh, Mayekor Diouf maa ngi lay remercier bu baax a baax ci disponibilité bi. waaw Ndeye Comba maa ngi lay gërëm bu baax di la di la sant. Mhm. Euh, di gërëm vraiment waa euh, réew mi FM ñoom Bemba yëpp maa ngi leen di gërëm bu baax di leen sant te di ñaan yàlla wax dëgg yàlla jeunesse bi. Euh, ñu trouvé waat espoir euh, ñu jàppale leen aussi ba ñu mën a toogaat ci dëkk bi liggéey dëkk bi parce que jeunesse mooy yore réew maa leen baax leen sant. merci beaucoup Mahécor Diouf may fàttali ne yow yaay coordinateur bu jeunesse euh, consciente de Toubacouta président de la commission jeunesse et sport et loisirs du conseil départemental de Foundiougne nekk aussi chef du personnel du centre de santé de Dakar Plateau ñu lay remercier bu baax a baax ci disponibilité bi Mahécor Diouf. jërëjëf